waxtaan wi mooy wala boog liñ ma ci cërale mooy ma waxtaane ana nan la code bi mel ak li nga xam ne mooy asharia islamiya ndax dëppoo nañ wala dëppoowuñ ndax li ñu dëppoowul loo xam ne la am na jeexital ci dundu doomu aadama yi ak seen diine seen diggante seen boroom walla déet kon ci loolu laa bëgg a def sama bokk ci waxtaan bi code de la famille bi comme ni ngeen ko xamee mooy téere bi nga xam ne ci la waa Sénégal di sukkandiku ngir war a lijjanti lépp lu jëm ci wàllu askan wi ak seenu dundiin tàmbalee ko ci amuk doomu aadama ak fi muy askanoo ba keroog muy génn àdduna bañ koy miraas ba biram jeex ci mbiri àdduna loolu la code bi di méngoo histoire code bi nag mi ngi dellu ci atum 1972 loolu am na muy tekki mooy ne kon bi ñuy doog a daanaka moom suñu bopp euh, ci la code bi ñëwee loolu am lu muy tekki ndax ndax bu ñu moomoon suñu bopp dëgg dëgg dëgg ndax code bu ni mel danañu àtte ci suñu wàllu nekkin wala déet waaye ak lu ci mën a am ci jooju jamono la fi code bi ñëw ba fi mu jaar ba tey fi mu nekk ak doxal gi nga xam ne moom la waa réew mi di doxal doxaluñ leneen ci côté boobu pour wax nag ci li nga xam ne mooy taxawaayu charia ci code bi nga xam ne mooy code de la famille bi nga xam ne ci la Sénégalais yi di àtte woo danañ dellu tuuti ci histoire ndax code bi bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi amoon nañ xam-xam bu wér ci ne Sénégal eh, li fi ëpp ay jullit lañ kon Sénégal réewu jullit la ci jullit yi tamit am nañu fi yor seen kàddu ñoo xam ne ci ñoom lañuy dellu ci lépp lu mën a doon ndax lislaam moo tëddee noonu amul lenn loo xam ne ah jullit ñi danañ ca sóobu ca delluwuñ ca ci seeni kilifa loolu bi ko ñi nga xam ne ñoo yilifoon réew mi xamee am na lu ñu defoon muy jéego bu am solo boo xam ne donte continuer wuñ ko mais baaxoon na te buñ ko continuer woon mën naa am njariñ mooy ne projet bi dañ koo jëloon yóbbu ko ci kilifay diine yi jox leen ko kër yi diine yi fenn fu nañu def fa yóbbu fa ab copie ne leen kat lii mooy tëralin wi nga xam ne ci lañ bëgg sayto mbiru askan wi ci askan wi comme ci yéen la ñuy dellu xoolal leen ñu li ci nekk ba xam nan la deme lu ngeen ñu ci wax dinañ ci bàyyi xel ba bu ñu koy wotee danañ xam la ca jara a méngale ak pas-pasi waa réew mi ak la ko ca jarul waaye li am ba des ci ñi xam mbir mi dëgg-dëgg ci xam naa ne ku mel ne euh, Imam Mbaye Niang dana bari lu bari lu mu ci war a dellu si ba ñu ko yóbbee ci kër sëriñ si avant sëriñ si di ci wax seen xalaat di ci joxe seen gis-gis kot bi yóbbu nañ ko ba voté ko kon foofu la code bi njëkk amee problème ci lu koy tax a nekk yoon wu ñu war a mën a jaar loolu moo tax bi mu demee bañ voté ko réaction yi tàmbalee di feeñ fekkoon na sax kilifa yi ñi ngi liggéey ci suuf di daje di jàngat kot bi di ci karmat li nga xam ne moom lañ ci war a wax ak points yi nga xam ne jàppe nañ ne code bi dëppoowu ci ak l'islam moo tax bi mu ñëwee fii ci Touba nga xam ne tey histoire aada nafsahu kon ni ko arab yi di waxee histoire mi ngi indiwaat boppam tey jotaay bii di jotaay bu doy waar waaye di jotaay bu daw yaram ndax nii ñu tooge tey di ko gëstu noonu la fi mag ñi nekke woon bi code bi ñëwee ñu def ci ay jotaay ba génne ci ay conclusion yu leer nañ moo tax bi mu egsee fii ci Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rahimahullahu taala waxoon na ci wax joo xam ne ba léegi kenn fàttewu ko mu ne woon moom day code bii narfudu duxula hadihi al mudawwana fii Touba xaw ma lan waaye code bii moom du dugg Touba kenn du ko fi atte ndax fii ci réew mii di Touba dëkk bii di Touba pàkk bii di Touba kàddug yàlla subhaanahu wa taala moo fi féete kaw lépp lu mën a doon ca amul benn doomu aadama boo xam ne am nga sañ-sañ di tëralal nit ñi loo xam ne lu wuteeg kàddug borom boobu la ba noppi nit ñi di ca wéy loolu la nga xam ne mooy li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ba mu demee tamit Tiwaawan même tontu boobu la fa fekk ca mbokkam ma Cheikh Abdoul Aziz rahimahullah moom it mu wax li ni mel ne las na fi Sénégal bi xaajatin ila mithli hadihi al mudawwana ñun sénégalais yi soxla wuñ bii code loolu sëriñ Abdoul Aziz wax bind ko ne wala yamliku al musharrihuna xaqan fi fardi mafahima wa qawanina ajnabiya ala alshaabi wa xaasatan annaha tatasaadamu maa qanaatihim wa tasawuraatihim ka muslimin pour tënk rek mu ne daal jullit gi ñu doon ay jullit di dellu ci alquran ak sunna mayu ñu ñuy jëfandikoo code bii kon waati waawoon it même kàddu gi nga xam ne moo jógee Touba moom la ñu feddali boo demee ci famille omarienne ba loolu la ñu wax nga dem ci mbooleem pàkki diine yi nga xam ne moo fi nekkoon ci jooju jamono seen jotoon ci code bi même tontu boobu la tontu woon ku mel ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma amoon ci taxawaay boo xam ne mooy taxawaay bi ci gënoon a ndax man maa ngi koy tuddee ci sama benn téere boo xam ne moom laa tuddee zaimul muarada ci jamono jooju moo nekkoon maanaam rasul xirba eh, moo nekkoon ci kanamu ñi nga xam ne ñoo jugoon ngir wax ci code boobu ak xeex ci code boobu ba kenn du ko àtte woo ci senegal moom yemul ci bind rek maanaam ay kàddu yu gàtt waaye dafa bind ab téere téere bi rek boo déggee thème bi xam ne pànk mooy wax kalimatullahi hiya loxol yàlla ko tuddee téere boobu maal asafi shadid ni mu waroon a tasaaroo ci réew mi tasaaroowu ko bi mu ko bindee muswadda bi jël na ko yóbbu ko ci mbooleem waajuram yi fi nekkoon ak ay mbokkam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak moom ñoom ñëpp dëggal ko kenn ku nekk bind signé ne li li si Cheikh Mbacke miy wax ci laa ànd ba fan yee ci ginnaaw alhamdulilah yàlla defal ma tawfiq bi may bind sama doctorat vraiment document boobu nekkoon ci maraaja yi ëpp solo ci yi ma doon dellu la ma doon bind ci di ko bokk ci doctorat bi ma xeeb ko lool ne lii daal dama koy ber def ci beneen liggéey bu gën a yaatu mooy kalimatullahi al-ulya bi dama koy chara génne ko yaatal ko bi ma ko defee alhamdulilah euh, sëriñ Abdou Lahad Mbacké mii Gaynde Fatma yëg ko jokkoo man ñu waxtaan ci mu ma day bu dee am nga ci bëgg naa ñu móol ko ndax mu gën a ci laa ko wax ne ko ah, man de Mbacké li bu ma sañoon ñu móol ko ndax man li ma yitte rek mooy xam-xam ci la ko móole Maroc vraiment ñu mool ci lu bari tasaare ko ba ñu baree baree bari jot ci ñu traduire ko ci français traduire ko ci arabe ñàkkul ne am na ci ay exemplaires yu fi des mën naa am dina am ñoom ci jox bala ñoo jógee fii ci Cheikh Mbacké def téere boobu tuddee ko kalimatullahi hiya al jàpp ko di critiquer ko ilmiyan waxu ko waxi opposant waxu ko waxi ku mer waaye da ko wax ci xam-xam wax dëgg yàlla man téere bi ñu baal ma bi ma koy jël dama jàpp ne rek benn sëriñ moo bind nii di wax rek ay xalaatam maa ngi koy wax léegi imaam ne ko man gën naa xamaat sëriñ Cheikh Mbacke nag ci beneen niveau bi ma duggee ci téere bi di ko jàng ndax benn borom xam-xam laa fa fekk bu mag bu xuus ci sharia xam dëgg dëgg dëgg l'islam ni mu tëddee wax fa wax yoo xam ne mu ne suta wax lu ko gën a leer lu ko gën a wér ci mbir moomu kon loolu moo doon taxawaayu kilifa yi diine yi ca loolu moo continuer ba ci seeni i ak seen doom ak seeni i jarbaat ak seeni i taalibe ndax li nga xam ne moo ñu tuddee SYRCOF ca muy CRS yi nga xam ne fu ñuy wax tey ci code de la famille bu Sénégal muy kuréel gi nga xam ne ay imam ay attekat ay boroomi xam-xam ci wàllu fekk ci wàllu droit di ay jurit ñoo fa ko sosoon ngir taaw ci code bi ngir ñu war koo changé ba mu dëppoo ak li nga xam ne mooy gëm-gëmu sénégalais yi ak seen pas-pas ñoom bi ñu ñëwee liggéey nañ ci code boobu liggéey bu rëy ba sax am ay propositions yu avancé yu ñu defoon jox ko état Sénégal waaye teewul ñu football ko sànni ci àll ba loolu loolu nag bu amee ak coono boobu ñu ciy daj tàmbalee ko ci sëriñ soosu boroom xam-xam yooyu ba ci seen sëriñ ak seen taalibe yi ñëw seen ginnaaw ba ci ñoom imam mbay ñaami ba ci tey jii tey jotaay bii war nañoo laaj ndax nag dëgg dëgg nag mbir mi jar na ko wala déet ana bi lu ci nekk lu jar ngeen di yëngu bi yëngu ak di ci sonn bi coono loolu ci laay tëje sama euh, wax ci rek tudd ay exemple dama koy tudd ndax xaju fi ndax tudd loolu ak yaxal ko ci laa def sama doctorat ci laa def sama magistère boo ko boolee ñaari thèse yi daanaka jege na ci quatre cent pages pour joxe ci ay exemplaires bunt par bunt bunt bu nekk na fa code bi wax ak la fa charia wax mu nekk dirasa muqaarana code bi am na jafe-jafe ci wàllu diine ak ci lislaam ak ci charia boo demee ci wàllu tàmbalee ko ca fa ñuy wax wàllu ngoro am na jafe-jafe la mu fay wax ak la ñi xam ne noonu la ñuy ñaar ñuy ngorowante ni ñu war a comporté moom lañ fa wax ak la charia wax dafa mel ne soowu ak penku boo ñëwee ci maanaam ñoom ñaar li ñu sañ diggante di nga xamee ne ci lañu nekk ci ngoro gi nga xam ne charia da ko xatal lool ñoom boo egee da nga fa fekk ñu yaatal ko ci anam goo xam ne buñ leen ca toppee a ah, la charia doon bañ ci liy dal ñaar ñuy ngoro ca mayee guñ leen boo moytul day leen dal nga dem ca sëy ba mu tàmbalee ci gàllankoor lu bari loo xam ne tey boo ko xoolee ci sunu jamono ak sunuy aada muy teel gi sëy fañ ko dàkk ne ku fa tollul kenn sañu laa maye loola wute naag li charia wax wute naag li suñuy aada wax ak li suñuy cosaan di dox ba booy takk soxna sañ-sañ mi nga am ci limub soxna yi loola gàllankoor nañ ko ci code bi ci anam goo xam ne bu dee ci code bi ngay dox na ko charia yaatale ñoom yaatale wuñ ko noonu am na ci choix boo xam ne boo ko xasee ba am sañu too ko soppi am na ci loo xam ne boo ko xasee ba bind sañatoo ko dindi muy tënk yoo xam ne nii dana mujj tënk jullit bi ci anam yoo xam ne dana dem ba soxla loo xam ne mën naa ba muy jël kenn amu ci woon soxla waaye soxla dab na ko ca bu ko soxlaa code bi dana doon gàllankoor ci moom ci boobu bunt ak sax boo duggee ba weesu loolu ba dugg ci wàllu ak nikaax wa talaaq muy wàllu sëy xam ngeen ne foofu l'islam dafa am taar boo xam ne l'islam li ñu doon waxtaanee ci kaw léegi dafa am ay baatam yoo xam ne am ay contexte yoo xam ne kenn te wax lu mel ne moom lu ko mën a wecc yéen dongo daara yi bu ngeen déggoo ci delloo ci kitaabu nikaax am na fa ay baat yoo xam ne charia da koo yett di ko wax ci sadaq di ko wax ci liaan di ko wax ci alfasx ak yeneen i bunt yoo xam ne bu ma ko tuddee wax dana gën a gudd yooyu yëpp la ca charia wax ak nan ko tëralee ak ni code bi wax dafa juunu ci anam goo xam ne da ngay mujj réer yow jullit bi boo duggee ci biir code bi. lu mel ne ñàkk wute wuteeg nit ci diineem wala boog ci ni mu juddoo ak yu bari yoo xam ne l'islam moom moo ci am jafe-jafe moom waaye ñoom amuñu ci problème comme ci laïcité la ñuy dox wuñ diine xel jàppee nañ ne doomu aadama yëpp daal dañoo daje nii doon doon ay doomi aadama comme moo ko jur rek donte dafa bokkut ak moom diine wala nangam ak nangam yooyu kenn du ci dellu. waaye nañ ko bàyyi mu doon doomu adama war a doon doomu aadama te lislaam gisewul noonu noonu nga koy toppee ba ci wàllu ndénkaan muy li ñuy tuddee wasiya ak charte yi ca lislaam wax ak sax alal ji fan lañu ci war a joxe wasiya nan la war a toll ak kañ nga koy sañ ak kan lañ war a jox wasiya bi nga xam ne moom moo ci sañ a bénéficié wu yooyu yëpp boo eggee ci code bi boo ko jàngatee da gis ne code bi dafay def ne charia def na leen ci li ma bëgg wax mooy yëpp benn waroon cee mën a taxaw wax ci lu yaatu indi même code bu nekk article ba ko wax ak lam ca wax ak li ca charia wax ak la ci alquran wax ak la ci sunna wax mais xam ngeen ne jotaay mel nii lu mel noonu du fi xaj dama am na document bi mi ngi ak ñun danañ ko jox comité bi nga xam ne ñoom ñooy organiser waxtaan wi pour ku ci bëgg a dellu ci ay détails nga dellu ci pour wax ne amul lenn loo xam ne ñun dañ ko waxal code bi bal li may jeexal sax mooy yàlla xam nañ man damay gësu ci code bi dama mujj ne xaaral ma wàññi tuuti sama charte yi nga xam ne ci laay xoolee bëtu code bi ndax bu ma ko wàññiwul damay mujj lakk code bi sànni mujj ma ne dootuma wax ne lenn wute nag charia feeg nekkul loo xam ne dafa wuuteeg aaya alquran bu leer naññ boo xam ne amul explication wala mu wuuteeg xadis bu leer naññ wala amul explication wala mu wuuteeg ijmaul muslimin waaye bu dee wax boo xam ne sax wala chaz boo xam ne mi ngi ci code bi nga xam ne am na benn imam bu ko wax ci lislaam sax dama koy nangul code bi jéggal ko ko mais ak loolu lépp yàlla xam na ne boo duggee ci biir dootoo bëgg a dootoo bëgg a euh, ñeme continuer di gëmloo jullit ñi ne war ñoo mën a attewoo ci code bi leneen li mooy même ñi nga xam ne tey ñoom ñooy atte ci code bi dafa lañ seen bopp seere ci ne code bi du code bu waa Sénégal comme ni ko Serigne si waxee woon ndax code boo xam ne binduñu ko ci làmmiñu ñu réew mi genn wàll waa réew mi xamuñu lu muy tekki wala li wala lu ëpp genn wàll delluwuñ ci ci seen i aada donte ñoom wax nañ ne ñoom biñ ci biñ koy bind ñu ngi dellu ci aada yi wolof yeeg aada yi jullit ñeeg yooyu wax nañ ko mais en réalité liñ ci dellu bariwul nga ñëw nag léegi ñoom ñi koy woo ak xam kot bi jafe-jafe yi mu indi ci tribunaux yi ca loolu du ma ci sori benn seere laa ci indi boo xam ne ci benn plateau bu mel nii man ak maître ma soxna kan toog nañ bi ñu waxtaanee ba pare mu ne ma oustaz maa ngi lay wax benn mbir loo xam ne sax ñu bari xamuñu ko mooy sama wastu wasiya man maam testament bi mu def pour njabootam war koo jëfandikoo ginnaawam wax naa leen ne lépp lu jëm ci sama miraas wala luy lijjanti sama kër sama ginnaaw ak képp ku bokk man bu ko bu ci kenn dellu ci côté Sénégal ci koo xam ne moom loola lay jàngale loolu lay atte moom kon gëmul ne code bi baax na gëmul ne code bi war naa régler problème sénégalais yi ci loolu rek doyoon na sëkk pour sénégalais yi delloo ko ñi nga xam ne ñoo leen ko joxoon hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi